ñoom pour opposant opposition systématique la c'est-à-dire lu jóge ci nguur gi rek baaxul xam nga kooku kenn mënu ko dégg waxuñu ne yëpp baax na quand waaye li nga xam ne Macky Sall def na ko lu ne fàng la bilan bi amul benn werante ne bilan bu baax a baax la def ba mu fi ñëwee 1900 2012 ak 2019 muy sept ans yi ku ko ku dem ci Sénégal wër région yi xam ne Sénégal def na jéego bu mag dans la bonne direction mais opposition moom loolu mooy rôle mooy opposé wu di war ne ne lu ñu def baaxul lu wax baaxul bon ñoom ñoom mën waaye nag li gën a am solo mooy ñu wax Sénégal yi ne ñoom suñu leen falee lii la ñu war a defal Sénégal voilà wala su dee ni dañoo li nga ne moom la ñu def suñ ko dafa am lu ñu ci teg waaye di di dox di di continuer rek kooku yaakaar naa ne amul benn njëriñ